asalaamaaleykum askan bi seetaan Star TV dal leen si jàmm si kër gi mbokk yi ñu ànd ak yéen ci xibaaru bés bi ngeen ànd ak Omar Tunkara ci boppu xibaar yi mbokk yi dinañ dem seeti ji waajtaayu parliamentary election si nga xam ne nag ñu ngi koy waajal ci réew Gambia ci election si yooyu nag njiit réew mi excellence si président Adama Barrow am na campagne boo xam ne mu ngi ko tàmbali bu ànd si ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal li di coalition bi lu aju ci wàllu ndox nag doon na ab jafe-jafe seen dëkkee fële ca li di Welingara ba tax na ñoom it yëkkati nañ seen baat di jooy di ñaan nguur gi nag pour ñu jàppale leen ñu mën a jot nag ci euh, mbir mooma waaye it yëmul foofu rek ñàkk ndox bi nag dem na ba fële ca boor lii di Fajaara ndaxte ñi nga xam ne nag ñu fay yëngu ci wàllu li di garden euh, di fa euh, roose li nga xam ne nag moom mooy ay ko jaay ñoom itamit wax nañ seen i jafe bi nga xam ne nag ndox mu leen koy jural mbokk yi xibaaru wu biti réew yi dem seeti ji fële ca Nigeria Nigeria nag nee nañ woy fupp yi dañoo attaque benn police station waat ñu daal di fay faat nag ñaari nit euh, mu nekk loo xam ne nguur gi seen bopp nag dañ ko daal di ñaawlu si njiitalu président Buhari fële ca Sénégal nag nee nañ àdduna si yëpp daje nañ fa waxtaane foofu lu aju ci wàllu ndox ndox nag nee nañ jafe-jafe bu màgg la boo xam ne mu ngi xaar àdduna waroon képp waaye nag foofu kilifa daje nañ fa ci beneen daje bi ñu ooyee World Water Forum foofu nag kilifa yëpp daje nañ fa waxtaane foofu jafe-jafe bi nga xam ne nag ndox mu ngi koy teg askan bi ci àdduna waroon képp mbokk yi ak yeneen xibaar dal na a jàmm ànd ak yéen ci yaatal gi mbokk yi dal si jàmm ñu ko ak njiit réew mi Excellence yi président Adama Barrow moom nag fan yile moom ak National People's Party bi nag euh, dem nañ tàmbali seen campagne ci réew Gambia campagne boobu nag dafa bokk ci taw boo xam ne président baa ngi koy def waaye bii nag nee na dafa dem ci biir loolu nag nee nañ ci campagne boobu nag euh, ci Central ba ci Farafenni ca Upper Badibu ak Ilis foofu nag président bi ak ñi mu àndal am na nag euh, teeru bu rafet bi nga xam teeru nañ ko ko moom ak parti bi ak candidat yi nga xam ne ñoom la tey Seydou Camara ñu ànd ci ak moom mu ànd ci yaatal gi. gannaaw bi nga xamante ne ni ñu ngi waajal parliamentary election yi ci réew mi njiiti réew mi di His Excellency président Adama Barrow génne na ànd ak délégation bu takk pour wër réew mi ci wër bi nga xamante ne mu ngi koy wër réew mi nag am na ay campagne yoo xamante ne mu ngi koy def léegi jot naa def campagne foofu ca Badibou ak Iliasa constituency ci Badibou ak Iliassa constituency bi rek njiiti réew mi rafetlu na bu baax a baax teertu ak mbooloo mi nga xamante ne ñëw ñoo ñëw fekkee mitinam bi muy xamle ne nag mbooloo mi lim firndeel mooy ne ndam la NPP di am ci parliamentary election si ñuy waajal ci réew mi président Adama Barrow xamal ndaje bi ne yëg na jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkuwanteel ci réew mi te nguuram gi ñu ngi def seen kéemtalaay kattan pour saafaral loolu ci réew mi NPP ñu ngee dugg ci parliamentary election yi di xëccoo lu toll ci ñeent fukki National Assembly toogu yi nga xamante rek ñoom ñoo nekk fii ci biir réew mi bokk na ci honorable Alaaji Jawara mi nga xamante ne moom moo leen taxawal foofule ca Lower moo Modou Diop ca Central Badibou ak Sankung Damfa ca Iliasa constituency moom président bi sax mu continuer ay kàddoom di xamle ne développement munta am ci réew mi bu fekkee ne boolewuñ li nga xamante rek moom moo nekk xalaat yi ak doole yi ci réew mi ci noonu tamit mu ñaax ñi nga xamante ne ñoo nekk National Assembly aspirants yi mu di candidates si pour ñu campagne ci jàmm ak salaam. Honorable Hamad NK bax mu di jëwriñ buñ dénk lu aju ci wàllu gan yi gën a ci réew mi ak ak cosaan moom it garal na ay kàddoom ci mitin yooyu di xam ne ne développement nag dafa war a nekk business su ci biir réew mi ndax ñëpp ñoom ñoo war a bàyyi seen xel ci wàllu développement réew mi. mu yëkkati ay kàddu nag jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk businessman yi nekk fii ci biir réew mi. mooy mbirum jula yi. wala mu juloo la kóoti. marchandise bi. d'accord a ko o. jula yi. juloolu ñoo bokk ci réew mi. mbéele dënd bankoo la. fonk nañ leen fii. ngaalum kalamutale. Adama musuta jàpp kenn tëj kaso. président Baro nee na ma moo. suñ faloo ba tey. biri nga siita fo bii. amul benn jula bu adama nanguda suma yëf ko kan fof ko président mbaro en fegota mba adama ñaannama dara walla aye ndaani fenna mba adama defloonama lu jaaru siyon walla aye mbulale ko nga kuuka e minni silo man mu ngi leen bàyyi seen freedom aya a allah a bulo bulo jox leen a aya allah fansoto di yàlla bàyyi leen seen samo ayatu alfa bulo dafa marchandise o tawla yaato lafa ñami debbo wut ak marchandise bi niñ koy amee ci réew ani marchandise o kana ñami ani aka soto ñami ma ñoo soto naan price international problème am da min ka soto je kole yaami je ku eew lu la neex nga jaayee moomoo wulita feko fen yaade yeeda feko seleni damay kɛmɛ fila tan wɔɔrɔwula ni luulu maɲɛw farafɛɲɛ naata farafɛɲɛ tuu tati kɛmɛ fila tan saba madam kawu ndaada kawu tuu fifti kɛmɛ fila tan lu ci bɛɛ na dëkk bi a tɛ banku kelen kan diwlin a ko eh, diwlino tey banjul bii banjul two thousand dalasi wuli fula sixty dalasi ani tan wɔɔrɔ soo ñëwee fii nii naata jàng two thousand two hundred bu teg nga koy jënde wuli fula kɛmɛ fila ni fɛn a b'a sanna wala loolu wolu jaarul yoon anin silamanta loo jëndee Banjul ñu ko lu ñoo jaayee Banjul two thousand sixty dalasi i ka min sam Banjul wuli fula taw woo bidongi diwlin paas ko bidongi diwlin noon a teg lu ma téeméeri dina mag juróom fukki dara be min ka fula jee asa kolaya ñaw ñaa ma ñana tamila kemi marchandise bi ni si julay dem nañ bàyyi seen xel juloolu baa doolo yi la i ka doobaalle batandi waaye nag bari ɗum ñomin lor bobo duñ ci mucc ko wo yankankato ate kaw kantilan mom sa marchandise ye intamoyla marchandise o ye wulane nga jaaye ka fo min ndiyata e ma waafila wolla suba si nga yokk soma ndaw somana yakafu dem naa jëndi kelek soble wolu nga ntada e jabu sang kii ne ma 800. doo kaay keme say. ma dem keneen ki 700. doo ko ma dem feneen jëndee ko 650. doo ñaasa keme loolu fan la am ci réew. lu tax jula yi di def noonu nguur goo xam ne deful la dara nguur goo xam ne deful la toroxalu la deful la dara bugga na am profit waaye na ngeen am yërmande si doomi aadama yi njiitu réew mi président Adama Barrow nag jaajëfal nañ ko bu baax a baax ci développement yi nga xamante ne rek moom la jot a indi fii ci biir réew mi ndaxte speaker yi nga xamante ne ñoom ñoo wax ci mitin yi yëpp gaaral nañ kàddu yu nu mel di jaajafal président Adama Barrow mitinam bu mujj nag foofa ca Badibou moom président bi mu ngi ko def foofa ca Eliasa constituency bi foofa nga xamante ne nii fàttali na gaay lu aju ci wàllu seen warugal ci national development. too bi nag dina continuer ci yeneen tund yi nga xamante ne nii ñu ngi fii ci biir réew mi moom président bi dina ñaax askan yi pour ñu yëkkati seen karta yi jox ko candidat yi nga xamante ne nii ñoom ñoo taxaw ci turu NPP Seydou Camara Star TV News. ñu dëkkee fële ca Wélingara fan yi nag yeewoon nañ ak euh, naxar lu ko waral nag moom mooy ñàkk ndox bi nga xam ne nag ñu ngi koy jànkuwanteel mu daan ab jafe-jafe boo xam ne ñoom ñu dëkkee ca Kombono district nag ñu ngi koy daj euh, ca tund West Coast Region nee nañ daal àggee nañ ca ni complain li nga xam ne nag moom mooy nguur gi di leen yóbbante di leen xamal ne seen communauté bi maanaam ñoom seen gox gi daal problème yi ndox nag moom la ñuy jànkuwante te lii nag nekk na fa ay ati at te ba léegi kenn mënu koy saafaraal ndax ndox ndox daal bu ñu ko gisee mooy njël ci suba ci boori juróomi waxtu ci suba te loolu bu la rawee rek dafa mel ni bër bi bër set yëpp maanaam daal bëccëg bi yëpp doo mën a jot ci lii di ndox moom nag ne nañ daal nguur gi ñu see saako seen i ndimbal ñu ànd ci daado ca Adja Sow moom mi nga xamante nag mu nga dëkk foofa ca Wélingara daal dina wax ne daal ñàkkum ndox mi doon na loo xam ne mu ngi leen di indi ay jafe-jafe yu mag foofu noonu ci fi nga xamante nag mooy seen dëkkuwaay te lii nag doon na loo xam ne yàgg na lool ci at yi ci gannaaw yëpp ñu ngi doon daal di jànkuwante li nga xamante nag mooy ñàkkum ndox fii dee ba léegi amul ndox nag te dund ñëwee ngi nag di wër ndox rek nag ci seer na ndox amul mu ne nag li nga xamante nag mooy community borehole gaa ñu ko fa am boo xam ne ñoom ñëpp a ko bokka waaye dem na ba li nga xamante nag mooy rang daf fa dee fara nekka te itamit nag daf dee doon li nga xamante nag su fekkee mun looy xaar dafa ni yow di nga ñàkk ndox ci li nga xamante nag mooy bés booba kon nag doon na loo xam ne ñoom jafe bu mag la te ñoom lu leen gën a naqadi ci mbir mi mooy li nga xamante nag mooy ndox five la moo daal di ñëw si suba te itamit nag su ñëwee daal balaa sax li nga xamante nag mooy naaj bi di tànga ndox daal di dem moom di am jaane sax moo daal di sànni li nga xamante nag mooy kàddu yi leen mu ne nag ci jamono juntoon ne ñoom dañuy dem sax ba li nga xamante nag mooy bili ndox daf leen dee far di leen fekk si foofu noonu ñoom duñu am li nga xamante nag mooy ndox ni ñu ko war amee ba tax na mu ne seen jëfin ak tamit li nga xamante nag mooy euh, seenin wér-gu-yaram ak lépp loo xam ne méngoog nag ñi soxla ndox ñoom ñi ngi jànkuwante li nga xamante nag mooy ay jafe-jafe yu mag yu méngoog li le tax na nag ñoom ñi ngi ñaax li nga xamante nag mooy euh, ñi yore wàllum ndox mi ñi daal di leen jàppale ñi daal di war a mën a jot ci li nga xamante nag mooy ndox ñi ko war a jotee ndax wéli nga ra nag doon na euh, tund bi nga xamante nag yàgg na lool ñi ngi daal di jànkuwante li nga xamante nag mooy ay jafe-jafe si jamono juñ tool ni rawatina nag ñàkk ci wàllum ndox ba tax na nag mu ne ñoom daal bu fekkee ne du am ndox kon nag jarul ñi leen di jox li nga xamante nag mooy bil ndaxte su weer dee rek nawet ñu daal di war a mun a sax toog sax ñi xaar sax luy di juróomi fan daal di dugg ci beneen weer bi de di leen indi li nga xamante nag mooy bil te ñoom dundee daal di faral di am ndox ci fi nga xamante nag mooy seen pompe yi ndaxte nag na ñoo xam ne ñi nga am foofu boo xool ñooñu foofu leen dee faral di dem su ko defee ñi daal di war a mun a am ndox foofu noonu te loolu sax doona loo xam ne ñoom ñëpp duñ daal di war mun a am ndox ci benn këri boo xool foofa loolu moo tax nag ñoom ñi ngi ñaax li nga xamante nag mooy nguur gi ab ñëpp ñoo xam ne am neen loxo ci li li mel ñu daal di leen jàppale ndax sonn nañ ci jamono juntool ñi Dado Thiam Star TV mbokk yi benn tey ci jafe-jafe ndox la ñuy des euh, fële ca boori fajaara la ñuy dem ndaxte nag ñay yëngu foofu ca gardening ñi fa yor seen garden di fa euh, jaay li nga xam ne moom mooy ay flower ak ñoo xam ne nag seen i garden lañ yor wax nañ ñoom itamit nag seen i njàqare ak seen i naxar si ñàkk ndox bi nga xam ne ñu ngi ko jànkuwanteel nag ne nañ daal ñoom ndox la ñuy liggéeyee te bu ñu amul ndox daal loolu problème la mooy doon te waxtaan nañ ci ñenn ci ay kilifa yi nekk ci réew mi la waxtaan ñu dëkkee ci KMC ñooñu nag dingoon lañ leen ko waaye boobu léegi gisuñu dara te buñ toogee amuñ it koom-koom biñu daan am daal ci wàllu business bi ko mën a mbokk yi xibaar boobu ñu ci Seydou Camara. Tidjane Diatta bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk gardinas yiy jooytu ngir jafe-jafe yu ñuy am ci wàllu ndox mi pour roose seeni gardin yi foofule ca diwaanu Kairaba Avenue moom góor gi le di Tidjane jaata nag mu ne jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkuwanteel bokk na si ñàkkam ndox ndaxte mu ne boo seetee da gis ne pompe yu néew lañ am ci gardin yooyu waaye pompe yi sax yenn saa yi dafay wow koŋ du am benn ndox buy jógee ci pompe yi loolu moo daf dee waral yenn saa yi dañuy am jafe-jafe pour roose seen garden yi mu ne tamit amuñu ay jumtuwaay yi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ci garden yi mu di garden tools te sax boo seetee da ngay gis ne apply nañ sax pour am ndox foofale ca garden yooya ci bunt bi nga xamante ne ñoom ñoo yore lu aju ci wàllu joxe ndox mi ci réew mi waaye mu ne benn tey ñooñu amul dara loo xamante ne def nañ ko ci mbir moomu mu ne ñoom nag amuñ benn ndimbal ci liggéey bu ñuy def ci seeni garden yooyu yenn saa yi sax mu ne dañuy am jafe-jafe pour fay trox yi nga xamante ne nii ñoom ñoo war a indi garden soil bi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo mu di suuf si nga xamante ne nii moom la ñuy jëfandikoo ci seeni garden yi muy ñaax nag nguuru réew mi pour ñu dimbale leen ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkuwanteel rawatina lu aju ci wàllu ndox ndaxte mu ne ndox daal bugg nañ ko pour fexe ba gis ne dinañ continuer seen liggéey yu ñuy def si seeni garden yi ndax mu ne ñoomi tamit lu ñuy def dafa bokk ci luy jëmale réew mi kanam mu di national development mu continuer ay kàddoom di xamle ne yëgaloon nañ leen ne OIC road project bi léegi tey mu tàmbale fii ci biir réew mi ndaxte yoon yi dañ koy yokk mu ne loolu nag xamut ndax bu tàmbalee dina leen affect ñoom ndax dina waral ñu bàyyi seen place yooyu nga xamante ne foofu lañ nekkat di amalee seeni garden yi ndax dinañ am beneen place bi nga xamante ne tamit foofu la ñuy jaayee ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def bu projet bi tàmbale seeni keeta moom itamit bokk na ci gardinas si moom it gaarale na ay kàddoom di xamle ne ñaar fukki at ak juróom mu ngi koy yëngu ci liggéey bile waaye nag dafa am jafe-jafe yoo xamante ne ni moom la ñuy jànkuwanteel ci seeni garden yi mu ne bokk na si jafe-jafe yi nag mooy ndox ndax mu ne ñoom lañ bëgg mooy booxool bi nga xamante ne ni bu pompe yi amutee ndox dinañ mun a jublu ci booxool yi su ko defee ñu mun a am ndox yu ñuy roosee seeni garden yi mu ne ndox rek mu ne ndox du seen mu ne du ndox rek moom moo nekk seen i problème de waaye boo seetee da ngay gis ne garden tools mu di ay jumtuwaay ak li nga xamante ne moom moo nekk engrais loolu yëpp seen problème la ci garden yooyu te yenn saa yi dañ dee am jafe-jafe pour am trox yoo xamante ne ñoom ñoo leen di indil suuf si ñu war a jëfandikoo ci garden yooyu mu ne business bi nag nekkul di dox comme ni mu daan doxee li ko waral nag mooy clients yi nekkatuñ di jënd li nga xamante ne moom la ñuy ji seen i comme ni ñu ko daan jëndee démb loolu nag waral na am nañ jafe-jafe ci boor boobu mu ne boo seetee da ngay gis ne am na complainte boo xamante ne ni àggee nañ ko KMC ndaxte place boobu ñu nekk mu ngi ci roon KMC yi ndax KMC seen i bopp sax ñoom ñoo leen binda di leen xamal ne OIC road project bi dafay tàmbali ci lu baneen yàgg fii ci biir réew mi ci place boobu nga xamante ne foofu lañ amalee seen i garden yi pour yokk yoon woowu te mu ne boo seetee da ngay gis ne seen taxi sax jot nañ koo fay pour continuer seen liggéey yu ñuy def ci place yooyu seeni keeta mi nga xamante ne nii seeni keeta mu ne taalib Talib benn Bensouda moom nag dig na leen ne bu soobee yàlla dina leen dimbale su ko defee ñu am pompe yi nga xamante ne nii moom la ñuy jëfandikoo pour roose seeni garden yi bu fekkee ne campagne yi jeex na ba mu win élection yi ñu falaat ko def ko meilleur bu lii di KMC yi Paate Ba moom itamit bokk na ci gardinas yi kàddu yu nu mel la gaarale di xam ne am na jafe-jafe yoo xamante ne nii ñu ngi koy jànkuwanteel waaye nag jafe-jafe yi bu ci gën a tar mooy ñàkkam ndox mi te ñu ngi ñax nguur gi pour ñu dimbale leen ci boor boobu Seydou Camara Star TV News.

seen candidate waaye ci kàddu yi nga xam nag Amadou Ba dénk na leen ko fa nee na nag na gars yi moytu independent candidate si parce que ñoom ñoo gën a garaaw euh, candidate si nga xam nag UDP ñu leen di samp ñu ànd ci daadu caam

gannaaw ki nga xamante nag mooy président Adama Barrow lu dul loolu daal yow war nga ne daal yaa ngi mel ni ku réer nga xamante nag mooy ci àll bi rawatina ñi nga xamante nag ñi ngi taxaw lii di lii di indépendance si jamono juntoon nii mu ne nag ñooñu ñu ngee nax seen boppa ndax foo nga nekk ci gannaaw ki nga xamante nag mooy Adama Barrow pour xam li nga war a xam daal di war a mën a taxaw fi nga xamante nag nga war a taxaw lii di askan gi mu ne nit daal mënut a jóg rek nekk li nga xamante nag mooy National Assembly member am na yu bëri yi nga xamante nag foog nga jaar si maanaam foog nga am parti bi nga xamante nag dina la yar daal di la tette daal di la teg fi nga xamante nag la la war a teg kon nag boo fekkee da nga bëgg a taxaw li nga xamante nag mooy independent da ngay nax sa boppa rek fii ci jamono juñ tooñ ci élection bi ñu digmal si daal dina sax gaaral li nga xamante nag mooy yenn ci luwaay lu ñu wax ne euh, bépp doomu aadama boo xam ne yaa ngi pare taxaw li nga xamante nag mooy MP fii ci biir réew mi foog nga daal di resign si bépp toogaay itam nag bépp li nga xamante nag mooy liggéey bi nga am ci jamono jun pour nga daal di war a mën a toog mu ne waaye am na ñu bëri ñoo xam ne ñi ngi taxaw pour daal di war a a taxaw li nga xamante nag mooy NP waaye xamul yenn luwaay itamit nag amul parti bi nga xamante nag tette neen la pour ñu daal di war a mën a dox ci tànk yooyu noonu Dado Thiam Star TV moo koy ñu sant gërëm Dado Thiam ci mujjantali xibaar boobu ci réew Gambie ñu jàlla dem seeti ji xibaar bi ci réew yi fañ koy dooree rek ah, muy fële ca lii di réew Sénégal Sénégal nag ah, nee nañ am na ndaje bu màgg bi nga xam ne nag ñu ko fa doon amale fan yii le ah, ci ndaje boobu nag ko daal di duppee World Water Forum maanaam mu nekk am ndaje boo xam ne lañ ci doon waxtaanee te saytu moom mooy wàllu ndox ci àdduna warngal képp foofu nag nee nañu loolu moo nekk juróom-ñeenteeli ndaje bi nga xam ne nag ñu ngi ko amale woon te si altine bi lañ ko tàmbali ba tax na am na ay nomba tànk yi nga xam dañoo bàyyi ko ci àdduna warngal képp daal di dajaloo foofa waxtaanee kaaraange ndox ak yi tamit yokkute bi nga xam war na koy andi ci réew ak jàmm ji nga xam a àndal ñu ne nag bu ñu xoolee UN nag seen report bi gis nañ daal Sénégal seen président bi ñu ne ñu ngi fàttali gan yi nga ñoom ñoo fàttewoon ne ndox nag jafe-jafe la boo xam ne moom mooy xaar askan wi si jamono bi nga xam ne rek ca la adduna bi toll mu ne euh, fu mu toll nii daal ñëpp gom nañ ne buñ si deful dara situation bi dafay gën a jéggi dayo parce que jéggi na dayo ba pare waaye nag dafay gën a ëpp loxo bu dee nag nguur yi nag joguñ si ndax nag euh, ñu ne boo xoolee nit ñi nag fa ñu dëkkee ak àdduna si tamit jafe bi nga xam ne nag moo am ci wàllu lii di jaww ji président Macky Sall nag nee na fu mu toll nii opportunité si ndaje bi nga xam ne am nañ ko pour ñu daal di waxtaanee waaye tamit nag xool jafe-jafe yi xool situation bi mu grawee ñu oot pour yi nga xam ne nag moom lañ koy saafarale euh, parce que nag wàllu ndox bi dañ ko war a jël nag teg ko si gën a kawe ci nga xam ne nag moom moo leen itteel nag si seen yi Euh, euh, ci seen i euh, ponkal yi ñu ne dëkk yu mel ni Guinée Bissau seen président bi nag di président Embalo moom itamit nag wane na ne eh, wàllu réew africain yi daal am na réew yu bari nga xam ne tey ji daal problème si dëkk am ne daal ñoom ñu nekk si àdduna si foog ñu am presidential councils on water eh, kuréel yi nga xam ne dañuy seetu wàllu ndox gi su ko defee ñu ñoom ñu andi li nga xam ne nag moom mooy ay xalaat nga xam ne moom la mën a def ba soppi li nga xam moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne askan waa ngi koy dund ñu ne technologie rek doyul waaye rek foog ñu innovate foog ñu andi ay xalaatu bees innovation bi nag dañoo war a am pour continuer ko ñu innové nag bay ñu am li moom mooy ay yeneen i jéego moom mooy war a mën a tax si ay jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy jànkuwanteel euh, nañ foofu la sale di Sénégal nag ñi fa teewoon nag bari nañ waaye nee nañ daal euh, forum boobu nag kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo bàyyi ko ci àdduna war képp teewoon nañ fa pour nag daal di waxtaanee lii di euh, jafe-jafe boobaa mbokk yi sunu mujjantali xibaar ñu dem seeti ji réew Nigeria Nigeria nag nee nañu si samedi bale passé woon am na ñaari police officer yi nga xam ne nag dañ leen reyoon waaye dañ ci teg benn fan mu dimanche rek ñu dem attaquaat nag beneen police station police station boo xam ne bu ñu fa doon attaque nee nañ nag euh, foofu ca South East Nigeria la woon euh, ca dimanche bi lañ ko daal di def

ñu ne attaque bi nag ñi ñëwoon nag ñoom woon mu andiwaale ñu andiwaale seen gànnaay ak seen i grenade ñi nga xam ne nag ay bombe lañu waaye bu ñu ñëwee dañ leen jàpp ba pare jàppaale gànnaay yi nga xam ne moom la gars yi andiwaale woon ci samedi bi nag si defoon nañ lu ni mel ñu faat nag ñaari police officers loolu nag nguur gi nag dañ ko daal di nakarlu euh, waaye tamit nag ñu dem attaque benn kër goo xam ne ki nga xam ne kooku moom kër gi kooku moo jiite euh, ko attaqué attaque yu mel ni daf koy condamné waaye tamit mu ngi ñaax li nga xam ne nag moom mooy askan bi pour ñu jóg ñoom ñëpp ñu ànd ak xeex li nga xam ne moom moo di di fitna yile mu ne mu ngi wanee naqaram ak tiisam ci police officers yi nga xam ne ñoom ñoo seeni bakkan waaye tamit di ñaax ñi nga xam ñoom ñoo si jëlee loraange pour ñoom tamit ñu muñ te xam ne nguur gi nag ñu see def leen war Nigeria nag wane ne bokk na ci dëkk yi gën a bari askan fii la ca tundu Afrika waaye tamit nag gis nañ ne daal ci at yi passé lu ëpp téeméer ci ay police officers ak security officers ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci ne nag ñu ngi koy teg mooy wéy fi pii ne nag jàpp daal ñoom dañoo gëm li moom mooy lii di ah, ah, dañoo moom mooy lii di nguur bi nga xam ne dafa ànd ak lii di jullite ah, Nigeria ba nag lu ëpp téeméer ci ay officers ñoom ñoo si ñàkk seen bakkan depuis bu ñu tàmbalee i euh, daanu yi nga xam ne nag ñu ngi koy daanu ci kaw nit ñi foofu la si seen euh, réew mbokk yi mu nekkoon suñu ba jëndali xibaar su ko defee rek ñu fàttali leen li nga xam ne moom moo di di ponkeel euh, ci ponkeel yi mooy ne taayu parliamentary élection si nga xam ne ñu ngi koy waajal ci réew Gambia ci élection yooyu nag njiit réew mi His Excellency président Adama am na campagne boo xam ne mu ko tàmbali bu ànd si di ñaan nguur gi nag pour ñu jàppale leen ñu a jot nag ci euh, mbir mooma waaye it foofu rek ñàkk ndox bi nag dem na ba fële ca boor lii di fajaara ndaxte ñi nga xam ne nag ñu fay yëngu ci wàllu li di garden euh, di fa euh, roose li nga xam ne nag moom mooy ko jaay ñoom itamit wax nañ seen i jafe bi nga xam ne nag ndox mu leen koy jural mbokk yi xibaar yu biti réew dem seeti ji fële ca Nigeria Nigeria nag nee nañ woy fupp yi dañoo attaqué benn police station waat ñu daal di fay faat nag ñaari nit mu nekk loo xam ne nguur gi seen bopp nag dañ ko daal di ñaawlu si njiitalu président Buhari fële ca Sénégal nag nee nañ àdduna si yëpp dajee nañ fa waxtaane foofu lu aju ci wàllu ndox ndox nag nee nañ jafe-jafe bu màgg la boo xam ne mu ngi xaar àdduna waroon képp waaye nag foofu kilifa dajee nañ fa ci beneen ndaje bi ñu ooyee World Water Forum foofu nag kilifa yëpp dajee nañ fa waxtaane foofu jafe-jafe bi nga xam ne nag ndox mu ngi koy teg askan bi ci àdduna waroon képp mbokk yi ak yeneen xibaar dal na si jamono ñu ànd ci yaatal gi mbokk yi